ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm ci seen chaîne bii di Leader TV di wax ne bu leen fàtte abonné gannaaw loolu ñu ñëw ak yéen ci revue de presse revue de presse nag ñu ngi ci njëkk Rewmi Quotidien moom Rewmi Quotidien mu nga fësal l'international sénégalais bi champion d'Afrique bii di Kalidou Koulibaly ginnaaw bi nga xam ne jóge na Naples dem foofee sa Chelsea journal mi ngi ñuy xamal ne kii di Kalidou Koulibaly amal na première te Arsenal làmbatu ko si làmbatu yu métti ba tey journal bi mi ngi fésal kii nga xam ni mooy tàggat waa Chelsea ñooñe muy Thomas Tuchel muy xam ne am tàggat waa Liverpool sa jamono boobee si club mi nga xam ne 2021 ñu génn la si doon waxtaan ak moom avant muy dem ba tey journal mi ngi fésal ay victoire boobee nga xam ne Sénégal am na ko ci éliminatoire CHAN yi Sénégal nag dafa dóor Libéria dóor yu métti ñetti bal ci dara dañuy jubal yéen bi groupe Futur Média moom ma nga fesal l'international sénégalais bi champion d'Afrique bi di Kalidou Koulibaly ginnaaw bi nga def na match bu njëkk ak waa Chelsea ñooñee ginnaaw bi nga xamee ne Chelsea da si doon jàkkaarloog Arsenal journal mi ngi fesal naan kii di Kalidou Koulibaly match bu rëy la def kii di Kalidou Koulibaly keroog wane na boppam bu baax ba tey journal mi ngi fesal ay kaddu Thomas Tuchel moomee coach boobee nga xam ne mooy tàggat Chelsea muy xamle naan le meilleur joueur sur le terrain su fekkente ni côté Chelsea bi la kii di Kalidou Koulibaly moo si gën a wane boppam bu baax ba journal bi mi ngi fesal ay kàddu Pape Ousmane Sakho moomee nga xam ni mooy joueur africain bi dàq bi si at bii ñu génn muy xamle naan man bëgg naa ñu sélectionné ma équipe nationale ndax damay liggéey liggéey bu métti pour ñu sélectionné ma ndax équipe nationale fësal suñu gaynde bicci ko yooyee nga xam ni fubalu tefas nañuy def ñoom ñi gannaaw bi nga xam ne dañu dóor équipe boobee di équipe bu neuf si neuf record dañuy jubali suñu lamb suñu lamb nag moom mën nga fesal derbi boobee amoon si diggante Pikine ak Parcelles kii di Dame Sène doon si jàkkaarloo ak Tonnerre mais Dame Sène mii moo daan jël bu set kii di Tonnerre. ginnaaw biir réew mi dañuy jubali bitim réew journal bi ñuy wax Mundo Deportivo moom mën nga fesal l'international français bi nekk foofee sa FC Séville ñu gën ko xamee si Jules Koundé moo tax journal bi mi ngi bind di fesal naan Koundé rouge journal yi ba tey mi ngi ñuy xamal naan kii di Jules Koundé jege woon na Chelsea trop mais nag bu ñu sukkandikoo journal yi ba tey mi ngi ñuy xamal naan kii di Jules Koundé information yu nga xam ne am FC Barcelone trop gannaaw bi nga xamee ne FC Barcelone mi ngi waxtaan ak FC Séville nga xam ne dinañu trouver benn contrat nga xam ne xale bii saison bii ñu jëm day engagé wu foofee sa FC Barcelone ñu leen di wax ni bu leen fàtte abonné ba beneen ak yeneen revue de presse jaa ngeen jëf